loolu li moom dafa ragal moom it papis ndax euh, papis menace yi mu koy def ci vidéo yi nga xam ni yor na ko waaye inspecteur moom su amoon lu ko gënal mooy day continuer euh, enquête bi waaye yaakaar naa ni nag euh, ki nga xam ni moo di loolu li moom moo waral lépp te kon bu waxee ni inspecteur na bàyyi inspecteur day bàyyi waaye nag li gënoon mooy mu bañ a ci chantage ki nga xam ni moo di papis te nag mu top mbir mi ba mu àgg ndax yaakaar naa ni rek papis saa bu xaalis mën na ko rek daal di toppaate ci vidéo yooyu ñu jàll si Ndiagane moom nag gis nañu ni euh, rôle am mi ngi koy joué à la perfection ndax euh, moom rôle séréer bi ñu ko jox mel na ni daf ko réussir à cent pour cent euh, tax na nag muy wane séeréer yi ni ñu fiyeeree ci seen culture waaye nag ni ñu bëggee seen culture itam mu mel ni kon mu ngi def éloge séeréer yi bu baax a baax ndax jàpp na ni rek séréer mooy culture bi gën a neex ci Sénégal ñu jàll ci beneen séquence Baye Mangoné moom gis nañu nii dem na seeti lool li mu mel ni nag moom Baye Mangoné dafa apprécier loolu li bu baax a baax a baax te it bëgg na di nekk ak moom moom euh, mu mel ni kon euh, moom euh, Baye Mangoné li ñuy wax ku de foudre moo ko dal ci ki nga xam ni moo di Loli te mel na ni Loli itam lu ni mel lay sentir ndax moom it lu mu bëgg rek mooy di nekk ak ma ngoone ñu jàll si njegaan njegaan nag mu ngi essayer rek di avertir jabaru Baye Mangoné di maa aji ngir nag mu xamal ko bu baax a baax ni baay ma ngoone ni mu ko gisee rek muy doxalee ak Loli su ma yiwul rek relation amoureuse mën na am ci seen diggante ku ne xam na ne nag jigéen boo ko waxee lu ni mel rek day daal fiir ndax benn jigéen rek bëggul di bokk ak ki nga xam ni euh, moom nga bëgg rawatina nag sa jëkkër ba tax na nag moom maa aji mu daal di attaqué ma Mangoné euh, indil ko crise de jalousie bu mag a mag waaye Baye Mangoné xamal na ko bu baax a baax que ni moom musulman la tey nag am na droit am ba ñeenti jabar euh, mu mel ni nag kon yaakaar naa ñoom ñaar seen diggante ñagas ñagas dina ci commencé am ndax yaakaar naa ni moom fiiraange fu mu dugg rek mën na cee yàq lu bari bari ñu jàll ci papis moom nag mu ngi menacé Rose waaye Rose war na que ni ragalu ni kon ñoom ñaar a yem wax wëyu bandi ñoom ñaar euh, loolu rek la ñu nekk di dund ndax ku nekk rek yaa ngi woon sa morom que ni maa la gën a capable ñu jeexal ak rama rama nag moom mi ngi rek di assurer marosique mu mel ni moom dawul benn yoon te yi nag reculer wul ndax nabu dil bi mu ko defloo woon da cee rek daal di profité mu mel ni kon moom rama dafa yàgg am ay santiment ci marosique ba tax na nag mu daal di jaay nabu xamal euh, marosique que ni nabu moo ko yónni woon ci moom waaye nag jamono ji moom boppam rek lay doxal ndax dafa bëgg ki nga xam ni euh, moo di Marosique waaye Marosique wan na leen carrément que ni moom euh, du koo xam ne dañ koy këlëkëlee wala koo xam ne nag dañ koy def ay dil wala genre yu ndax moom li mu bëggoon mooy Nabou daal di am ci moom confiance ndax moom rek confiance boobu da yeyoo waaye nag li am métti na ko trop kon boo koy di fii la yem ci épisode bu série Kër Baye Mangoné ma jox leen dig daje beneen épisode waaye laataa boobu woy leen di abonné ci seen série